asnabu saxri ku ndoxu bañu la ci sàkkaraaw yàlla xiina yab si wax si way muñ yafturu dana feeñ xan duri ci wurus xuwatun njam lam yaw ba aji soon dax mu raasi ku rëy bopp la ko ku gudd woon masraba la mooy diggante biit bi ci kii bi nii rëdd kii boobu fi shaar yi nekk na ca karaw ga ñu ne coon tarajulun ak peñoom wan si wan wan si lemu maanaam kawaram dafay am yoo xam dafay dafay dafay kii dafay lem xam yoo xam dafay yëkkati ko Ah, xam nga gis nañu saaru kawra yi ma bëgg laa wax de lépp du bokk taxaw waaye lépp du bokk baramu dafay boole euh, lii yëkkatiku yi baramu noonu la ko yàlla bindee woon boobu boobu rëy nag la ko yàlla joxoon waaw mm-hmm. ah, bo boobu rëy dafay tekki sànq borom bopp ndaw foo ko fekk du mën a nekk sànq mm-hmm. waaye bu nekkee sànq yàq rek gis nga président yi ci am seen bopp yu tuuti ñu jëm fenn te moo ay ba mu juddoo mm-hmm. kii dana nekk sànq de euh, ne mu gën a nekk sànq de raxbu raaxin ku yaatu ténq la wa wasatnu ka kaffin kun mooy la ay ténq nag ténq li dafa nooy tawilu sandi ku gudd la xasabu wal kafu ténq la raxbatun yaatu na waaye nag mextaawu joxe akon la ni yaatoo ni la yaatoo dara du fa xendu lu fa xendu rek euh, dafa yéex a ñëw lu fa fanaan tamit dafa guddee ñëw waaye lu fa ñëw mu joxe ko am ngoog mu ne ab yooyu aji weex la kulóoram ba waaye musrabun bu jaxase la mm. bi xumrit law nin ci xonq xonq melo mm. xonq cor waaye weexu tal weexu tal ba mel ni tubaab waaye xonq col ba mel ni euh, pël kii euh, kii yooyu mu ngoog dégg nga ngoog fi kaset bi yegg duñ ko xam af af af laju mm. saqri ku feeñ la mu sàkkaraaw yàlla maa addaaw lii ma wax la nag moom xayaawu kersa la rek kersa nag moo yokku taaram ba rabaatul xaddi ku digg doomu la ki taxaw guddut bu xëpp waaye gàttut woo moom yaftaru dana feeñ xan xaba bi xamaamin ci fóoritam niir jaada dotti na àll ci moom sama asamaan dafa ko ndox ma la cay génnee day mel ni niir niir bu sedd boole ko ndox ma weex tal te woo moom yaftaru dana muuñ xan xaba bi ci fóoritam niir jaada boobu dotti na àll ci moom sama asamaan mm. aw sanaa barqi wala mu mel ni leer ak melax intakallama bu waxee yabdu dana feeñ min sanaayaw ci ñaari tàqam ya fi kalaam yi ak nekk la ci wax ji diyaawu diyaawu leer yonentu bu wax ju leer la yox waaye wax ji tamit ni gémmañ nga leeree ni la kàddoom leeree du wax mukk nga ne lu mu wax dex ku ko façonu re façonu ree xam nga lam yaxdu mosta jéggi tabasumu muñ muñ rek waaye ree ba ne kekk musu koo def laakin li fi nekk masta xafatu xoyofalut ko xendoo fa moom saraawu xéewal dafa am ñoo xam ne suñu xamee xéewal ko nga nga xàmmee ko yonentu naqaram munoo koo xamee ci xar-xaramam waaye xéewalam tamit ah, bégam mënoo koo xamee ci xar-xaramam yépp la yemale dégg nga de kenn du yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ca yonentu bi dégg nga loo teg waaw loolu la ku leer la mu bind der ajiradu ku kon mooy la rax bu ku yaatu dënn la azrahul law ni ku leer couleur la mm. albatnu biiroo mi ni ci sawaawu ak yemoo la ba buur ba dafa yemoo mm. waaye nekkul biir bu boo xam ne dafa mel ni ak njaq mm. koll gu ndaw walla gu kii nii dafa waaye biir bi dafa xem ni mel ni raw li ñuy wax rawaasu daal noonu la mel fawqa marbooxin moo sut njool ya nag waaye nag lam lam lam yashaz jéggi dayo bi tuurin ci gudd guddut bañ koy téyeen waaye lu luy gudd gudd boo jàkkaarloo boo teew yontu moo lay sut in mm. badat bu feeñ na ci bu xaamatu taxawaay ba jat jar jar daaw bay aji digg dóomu ngoy firi moom mi ko ci ajrat mooy bu rattax ba dégg nga mm, dégg euh, de mm. kon gis nga ko ku anwarul xaddi ku leer la mu jëm jëm mi dafa leer gis nga ko ajradu ajra taxle la ko ajradu rax bu sadrin ku yaatu dënn la azharu law ni ku leer maanaam mm, mm, couleur la mu biir ba minu tukkee ko dañu sawaaw ak moom biir ba daan daf mel nu rawaasu waaye taxawut rek mel ni ak ak njaq rek bu mel noonu ñu mel ni xiibani ni ñu mel wala ñeel na ko xaata mun ja euh, tampon mooy tampon yi ñu defal yonantu yi moo sut njool ya moo sut ñu gudd ña waaye lam yasas day dayo bi tulin ci gudd in badat bu feeñ min ci xamut taxawaay ba dégg nga jaar jaar daa u bay aj yara tax ne nga ne bay aji diggu doomu loo teg wala woo ñeel na ko xaatamun tampon alal fi mu nekk ca mbaggama yusra bu càmmooy xóot xóotu mbaggam càmmooy ci la ne foofu foofu la xol xëppee moo taxoon foofu saytaane fa lay jaar di jax-jaxal nit moo tax foofu la tampon ba nekk ne saytaane mënu faa jege mu yeneen yëlantu yi nag seen xóot xóotam mbaggam ndeyjoor lay nekk moom nag moom ci bu càmmooy la ne euh, ay kawar wër ko ñu bind sa siriya muhammad fa innaka mansurun kawar ya Seydi Hadji Malick ne boo ko calculé du passé ñaar fukki kawar waaye ko wëroon euh, dégg nga wa min dégg nga day wax ne xattu xat tuxtamu dana kasteel dana tampon anbiyaaw yonantu yi min ca tampon boobu tampon boobu ñu tampol comme lañ daan tampol yonantu yi mis la euh, zarril dafa mel ni ki bouton manto ni mel ni mu rooxee noonu aw ka bay din wala mel ni ki nen boo xam ne ko daxat ko sippi na ko xamaamatu pitax war xaaw bay aju saq ji dunq wala ñu dafa mel ni nena pitax aw ka xaalin wala mel ni xaafu maam yàlla waaye lu ci mën di am waxaw la ko wër na ko saxaraatun ay kawar fa li haza ngi ci ngir lii taxaala fa la wuti an baaw solo ya ñii dañ ko niraleeg bouton wu manton ñu nirale ko nenab euh, pitax ñu nirale ko xaafu maam yàlla maam xalifa ne lu ci mun di am euh, tabaarakallaahu euh, maanaam maanaam ay kawar a ko wër Seydi El Hadji Malick nag bañ ko calculer matul ñaar fukki kawar dégg nga de ci digg ba nag lañ bind Muhammad Siriya Muhammad fa innaka mansurun Mm-hmm. nekk ci digg ba Muhammad dégg nga mm-hmm. ñeenti xaraf moo ko wër mm-hmm. ba ko dégg nga moo moo war kii ba eh, tabaarakallaahu bokk na ci ngëneelul xaatamu nubuwa ba ku ko gis rek su yàlla jégal na la say bàkkaar ku ko gis rek dama aljana moo tax ñaari nit ñoo ko mu a gis waaye ñooñu dem nañ aljana kenn ki dem dafa dafa muusoon da nga koy dégg sax ci waxi gàmmukat yi eh, yonentu fa ko dóor mu ne mu ne ko foog ma fayu bi mooy dóor mu ne ko ah fa sëggal ma fa sëgg naa mu ne ko ah. booba sama mbagg mi dara néewu ci woon da nga ko da ngaa damaa summeeku woon kon fa nga summeeku mu dem na xool kii bërëb foon ko ne ko xam nga ne ko gis ci mujj di ko dóor <laughs> kaana nekkoon na yem si daan dox taqalloo an ci guddee ko ku bëgg a bayti yow nga danaa dégg nga wax yata kaafaa daan jaayoo bin siyaa bin ci yol te amaa comme na yolee maawu ndox mi yonentu buy dox wata tànk yi foo gis di seet poussière ba waaye day buddi tànk ya di ko sànni di buddi beneen ba teg ko fële ànd ak di jaayu wa yatulu sud na tiwaala njool ya xiina yu marché waxtu way dox walaay moo sut lu ñu ko dugal yonantu la sut buy dox xasural gàttañ loona rufaqaaw sett ya xan maqaami walis taxawaayam ba kaabu hoo dajooram ba man man man hoo sun ñu lu ñu maasale la du lu ñu faccal la nga génnoon nii dégg nga nga kaan nekkoon a masiixa rajili dikkun mooy tànk rek eh, ay dan ba war a jëloo tànkam ba xam saawu aji xóot la mooy dafa xol tànk xol tànk dafa xóot nii xolu tànk ba kon gis nga ko de mu ngi lay wax nag kon kii am bi yëpp ni mu demee noonu sallallahu alayhi wa sallam hmm, dégg nga hmm. Hmm. waaw mu ngoog kaax bu dajooram ba man xoo sun lu lu lu tuuti la man dajoo ba rëyutoon fàccutoon ba ba bu xëpp boobu ngay jël boobu boo koy enregistré boobu ngay jël bu ñaareel bi ngay wax ne maanaam bàyyi maa dem da nga koy boo koy defaraat kaax bu dajooram ba man xoo sun lu ñu tuuti la woon dégg nga de wakkaan nekk na mm, masiixa rijli di koo xam ne ku nooy tànk la ku rattaxle ay tànk nooy le ko la euh, aydan ba tey war a julluhoo tànkam ba xam saawu aji xóot la xol tànk ba ma tax bi ko Aïcha gisee ne ko wa axsanu min ka lam tara aynu qattu wa ajmalu min ka lam taldi nisaawu xulixta mubarraan min kulli xaybin ka annaka xat xulixta kama tasaaw loolu di faatin borom ak gestoo la bi lii bis mi si jëmm ja turan boole seet luy gestoo jëmm jëlee pay xan dak maa tax gestu du sunna fama lil ji di dit ñeel loos ma in si naaw ak le mu filtifaay ci gestoo gestu rek jël sa kii bi nii rek loos bi rek na nii yoon du ko def buy gestu jëmm jëpp lay xan dak xaadibun daana bi bil xanaa yi ci fuddan wal katam ak ak katam ñaar yo façon kuddan la laakin li fi nekk na fii kasirin li gën a bëri xiddaa boor yi xam nga xanaa mooy fuddan xanaa la daa gën di gën defandikoo rax bun ku yaatu la maa bay na man ki bay la nekk ci diggante ñaari mbagg yi diggante ñaari mbagg bi dafa soree walil atrafi ñeel na kaddi mi ni ci moom su bootatun ak nooy nooy xas naa gu rafet hmm. dégg nga de loolu waaw man mun a jalilu masa jalilu musaasin musaasin ku rëy la mu ay yax dax mu karaadis yi ku rëy ay sofe-sofe la sofe-sofe karaadis mooy fi yax yi dajee comme tey doon eh, eh, tikku njare ak kii mm-hmm. conc ak yaxu mbagg mi karaadis mooy fi ñu yax yi dajee mm-hmm. yonent bi ko rëy la la mm-hmm. àll yi nekk na ci moom baxawu taar na jimaane gu bàyyi ko ci taar mm. laay bàyyi ko ci yàlla ku ko mën a tàggati rabbi yow sama borom innaa naka ñun bii ci daraja yonent bi istance naan la ñu muslu tawa hmm. jaarul Moustapha dëkkandoor ak yonent bi laa tam musoo du ko laal dara wu lor fak fi naa yàlla nga ñu fegal kulla saamit bi képp noon bu ñu ndokk ba muhaadin ak ku ñu noonoo hmm. wala takku na nekk ba da xos ni naa gannaaw suñu njàqare saraawu xéewal ci nekk sallallahu alayhi wa sallam zikru misaaxihi lii mooy buntab bi hmm. dafa daan kaf yataata daana jotlante almisaax ak kaf li xiinan léeg-léeg walakin li fi nekk xawluhu waxam alxaqu dëgg lay doon lay sa fii di ci nekk imtiraawu werante mislu laa tadxuli lu tàbbi jinaana aljana ajuusun màgget benn màgget a ñëw ci moom di ko ñaan loo aljana mu ne ko ah boo xeboo noppalu màgget du dugg aljana muy jël suuf di ko sotti ca bopp ba yonent bi ne ko li ma la wax rek màgget du dugg aljana mu jigéen nag ki la ko wax ne ko wax naa jàngu fa jaalnaahunna abukaaraan inna ansanaahunna inshaan fa jaalnaahunna abukaaraan mooy ne ko daal bu leen yàlla dina ree dugal aljana te leen di soppi ba ngeen nekk seen digg doole fanweeri at ak ngeen di toll waaye ni nga màggatee ku la dugal aljana nga seey te aljana amul salte te ku fa dugg di màggee danga ko salte su ma tax mii du saahirin topp gëmma gëmma gëmmal bëtu góor gu ñu tuddee saahir wa shiraaw ak jaay ga Euh, dafa àndoon ak benn xaritam euh, tabaarakallaahu dégg nga ñu ngi ko daan tuddee euh, Sahir ibnu Haram dafa romboon dégg nga dafa yonantu bi moo romb Sahir ibnu Haram mi ngi nekk ca marché ba di jënd di yonantu bi ñëwee ko ca gannaawam jël ñaari loxoom ya taf ko ca bët ya comme li nga xew nga gis nit ñi di ko def noonu yontu bu baax la ba mu ko defee nag mu ne waaw kan mooy jënd sama jaam bi man mi dama ko bëgg a jaay lii de jaam la ma koy jaay zahir nag di ko pes ca gannaawam di def nii di ko di dóor yonent bi ca gannaawam te xamut ne ki gëmmal bëtam yi kooku mooy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam ba demee ci ee eh, noonu la ko kii indee yonent bokk ko nag mu gestu nag mu jigéen a ba mu ko bàyyi mu xam ne moom la nag lu ko man yashtari minni hadha al abdu wa jaala commencé nag di fëgg dënnam ba nag ndeysaan di réccu moo tax mu ne yataata daana jotlante almisaax ak kaf xëy nan léeg-léeg walakin li fi nekk xawluhoo waxam alxaqu dëgg la layta fii détt ci nekk imtiraaw werante bis lu laa tudduxul du tàbbi ji naan aljana xajoo suñ màggat su ma tax mi du saahirin topp gëmmala bëtëk saahir ibnu haram wa shira jaay ga wa ka xam lil fata ni ki xenuk camsa alab ni xalosin ci doomu gëlëm ga xam na njort na min dalika ci loolu ne am na ko naka moom istisaaw ak yëjj la waa ji dafa ñëw ci siyaara si yonantu bi rek war ak gëlëm xibaar bi xadis bi ana sa ko nett bi dégg nga de ba mu ñëwee yonantu bi ne ko yow nag doomu gëlëm gi ngay war nag waa ji mer jàpp ne daal da ko da ko saboté rek géléem gu mag gi mu war mu naan ko ko ci la ko yonent bi leeral ne ko ndax euh, mën naa ñàkk nekk doomu géléem doom mooy luñ jur rek buñ ko jurutoon lu nekk doomu géléem mhm. kenn du yonent bi wa yukk naa def na dàkkantale aba aba umayrin misaaxan ci kaf wa tukk naa def na dàkkantale aj li saa ngir lii asbiya u nga defam xale yi boo demee ci euh, xibaar maanaam hadis anas mu ne amoon naa menn mbokk mu ndaw mu amoon picc di ko foxee dégg nga yàlla dogal picc maa ngi tuddoon naxiir picc ma dee mu jàq lool ñëw ci yonantu bi maa faala naxiir yaa Abaa Umayri waaye yow Abaa Umayri naka la naxiir def tey ci la nag fuqaaw yi jëlee ko jëlee jëlee jawaasu kunyatu mu ne ko naka la naxiir def tey ci la foqaaw yi jëlee ne ku amagul doom nekk xale mën nañ koo dàkkantal ndax xale la te ñu koy abaaxu may li te xale la wa naka la waxee woon lii la tii ñaal ndaw sa nga xam ne xat attatu dikkal na ko mu ne ko saw jikki sa soxna si al yawma tay aynuhu bëtam ba bay daaw yu weex la kooku tamit hadis la benn jigéen ñëwal na ko ne ko man de sama soxna dafa màgget dafa màgget dafa feebar yow yonantu bi maa ngi lay xamal ne sama jëkkër dafa feebar mu ne ko dama bëgg nga ñaanalal ma ko pour mu wér yonantu bi ne ko sa jëkkër ji bët ba weex na tay de ndaw sa nag jaaxle tiit lu ne muy def mu jigi nag si ne ko yonantu bi nag ne ko waaw ndax am na ci nit ku bëtam weexut xam nga loolu ci kaf la waaye wax na ko dëgg wa sibaqin ak rawante ga li Aïcha ñal Aïcha wa huwa moom xad xaasa làq na ma da sabqi lefam jiitu wala anaamu mindeef yëpp waraawu ña ngi ca gannaawam yonent bi daanam ba ci kanam mu ne Aïcha kaay ñu kursu léegi-léegi Aïcha raw ko léegi-léegi mu raw Aïcha bu ko rawee nag ne ko haadihi min tilka maanaam gii nii mooy sa ga ma rawee xoon bu fekkee Aïcha ko wa Suhaybun bu ruumi yu naawu tere na ko an akkali tamrin walis lekk tàndarma fi misaayin ci kaf isa aynuhu ba nga xamee ne bëtam ba ram daaw aji wànnentu la Suhaybu dafa ñëw ci moom wànnentu yonent bi ne ko ko wànnentu du lekk tàndarma de mu fi bàyyi tàndarma ji de te xam nga Suhaybu ko xir la ci tàndarma moom tamit ku reelu la xaala mu ne ko siqi sama wàll gi saxiyu gu wér gi aakul danaa lekkee fii ca moom daxikat ree min maqaal yi ca waxam ja jula saaw ñi nga xam ne ñoo ñoo toogoon dégg nga de ba mu ñëwee mu ne ko waa sama côté bi nga xam ne sama côté bi nga xamee ne nii moo wér ci laay lekk tàndarma ah. ma bàyyi ki nga xamee ne nii moo moo feebar ah. dégg nga kon léegi loolu mooy buntu bi léegi wujubu taati wa mahabbati sallallahu alayhi wa sallam loo teg ma xool dégg nga wa alaamaatu xubbihi mandargaal sopp ko kasratu sawqi mooy bari cofeel ilayhi jëm ca moom huwa moom mu naa mooy mbébén ma war a jaawu yaakaar ga mm-hmm. waxti faawul asaare ak kañtu jeexitala minu ca moom mm-hmm. wa tarkun ak bàyyi li la ci la xam ne te ba dana bañ ko ak sunatu sunna raaw bay aji siiw mm-hmm. lépp lu sunna bañ la nga ba ko wa salaatun ak bërik julli xale ci moom fii ku lixinin ci bépp waxtu bépp jamono wa salaamun ak di sëlmal dégg nga de euh, fa euh, wa salaamun hmm? mu jëntadun guñ beesal wasanaaw ak di ko bàkk wan suur na ngay dimbale alim la sa yoon wa xanifata ba ak jàng diini ni jëm ci diini dëgg mi hmm. maa ci la nga xam ne nasarata dimbale woon na ko min xable ko si njëkk xuna faaw saxaaba yi ngay dàkku diine di ko dimbale hmm. di ko waxal di ko bindal di ko di ko di ko défendre hmm. su ko defee loolu tamit bokk na ci lii wala ne bëgg nga yonantu bi loo bëgg da ko war a niru wala woo ñeel na ko maa xat faata li nga xam ne faat na xaddan ci lim wa naqalan ak ci toxal mu ma gisatul ay mu ma gisa lam tox siha takkeewut ko takkeefut ko an baawu solo yi wa kafaaka doy na la quran quran min ha ci moo gisee mhm. fa bi nuuri aji nekk la ñaan leer li si suuf bi ñee borom xel mu sell in raaw ko gisee rek dana ko ñaan ittifaaw ak doylu mhm. alquran aaye mhm. dañ ko fekk lim bu yàgg waaye ëpp na loola six mille six cent soixante six lañ waaye ëpp na loolu boo ko seet ci bi yëpp boo ko da ngay jàpp ne alquran ñetti aay yu ne moo gisatu boppam la su boobaa kon boo ko doon xaar boo ko doon xaaj ñetti xaaj jàppal ne alxuraan boppam am na ñaari junne mujisa ak ñaar téeméer ak ñaar fukk ak ñaar ëpp na ko sax euh, boo ko jëloon ci limbale moo tax mu ne xat xawaa làq na min ayin ci aaya wa min mujisatin ak ci mujisa maa xawaaw loo xam ne làq ko min xabli ci jëkkam yi parce que yonantu yi seen mujisa yi li rëy rëy benn saxut ci Moussa ak xet waak Souleymane ak xorondom ngaak ci aju lépp ñu ko alxuraan waxutoon kenn ko xam kon moom njooleem lu ñu am ci moo gisa yonentu am na bu mel noona jagoo nag loo xam ne ñoom jagooxuñ ko muy moo gisa boo xam ne boo xoolee gis ko boo làmbeer daj ko boo dégloo dégg ko te du sàppi du xewi ba àdduna tukki xoolal nag li amoon mis la lii ni la xadiidi kenn nooyal ak weñ nga xam nga kon yonentu yàlla daawuda la yàlla tàggatal ak weñ xam na lu ko gën a rëy daana fekk weñ mu koy leem comme ni ngay leemee efos donte Souleymane yàlla nga ko doon wax ne kon Daawuda wala naa lahul xadida an yaama saabiqaat li yonentu xam ne lu ko ëpp wa naaru safara wa uxmidat fayeef na minhu ci yonantu bi hmm. buñ ne safara sa xel daj Ibrahima ndox moom tamit yàlla tàggatal na ko safara ñu dugal ko ci ta lakkut hmm. waaye li yonantu bi xam a gën a foor hmm. yonantu yàlla da koo fayal safaraaw xisiya ak maanawiya safaraaw xisiya dafa dégg na yonantu judd na rek safaraaw Faris wa te mooy uni uni soviétique nga xam ne tàkk na junnee xat am junnee xambukat am junnee taxankat yonantu dafa judd rek dara xewagut safaraw fay Ibrahima nag moom bay safaraw fay dugal nañ ko ci ba pare kon duñ benn ñaareel bi safaraaw maanaa wa yàlla fayal ko mooy mbooleem ak iñaan ak pexe mu bon mu yahudi mos a jug taxal jëmee ko ci yonent bi rek yàlla fay ko moom nga jàng alquran ne kullama awqadu naaran lil harbi atfaaha allah dégg nga de su ma saala topp yol na mi nu ci moom almaawu ndox ma ku tudd ndox sa xel daj yonentu yàlla Muusa li ko yàlla may si ndox li yonentu am na ko gën a rëy de Moussa dayoom ci dox mooy dugg ci géej rek sa labut ak bi mu juddoo bees ñu sànni ko ci ndox mi ma ma kon moom naka jëkk rek ndox ko sooy ci lépp li yonentu am ci ndox gën a rëy dem na ci benn xare bu ñu tuddee Tabuk saxaaba ya mar amuñ lu ñu naan mu ballal ndox ci diggante baaraama mu mel ni robina jox leen ñu naan ñu am janaba sangu duy seeni mbuus ndox mi ngi tàggataloon Moussa yonentu xam na lu ko gën a rëy bu xayrata saawa géej la woon gu ñu doon jaamu keroog ba mu déggee ne yonentu judd na rek dafa jékki-jékki ngiis nga moom nga bu siiru di wax ka anna bil maa'i ma'a bin naari balalin xusnan kon loolu moo gën a foor wa saqaa nandal na ay jëy su lël ba war taraw ñi nañ min miyaayin ci ndox man na baxat bu ball na min yedde yi ca loxom mi yedde yi bàyyi ko ci ñaar baaraami loxom ya neex ma baax na riwaawu mandarga wa kalaamu dibaa bi waxi mbëtt ma su ma salaamun topp nuyu ab saxaar leeral na anu walis ko ak saxaratu dëgg a sama bay ak yi tax yonentu fekk na mbëtt mu ñu rendi comme ni ko ko jàngee si Ahmad Tijaan yi nettali ko euh, mu xoo arabi yu ba Abubakar sax moo ko doon xoo ne ko waaye doo ñëw xoo gëm suñu yonentu bi moom dafa ñu tere lu bon di ñu digal lu baax te moo ciy jiitu mu ko du ma ko gëm lu dul mbëtt mi ma rendi moo ko gëm mu ne ko mu yonentu bi ne ko bu ma mbëtt mi gëmee nga gëm ma mu ne ko waaw yonent bi ne ko yaa dabbu man ana mu ne ko anta muhammadu rasulullahi salaa sallam faqad faasa man amanaka wa qad xaaba man kafaraka araab yi ñu ne dafa jébbalu ñu ne dafa ne lii njabar la léegi tamit gis nga ko moo waxal na boppam ne am na doj bu nekk Makka ba ci àllam ya mosuma koo romb lu dul ba nuyu na ma ne asalaamu alayka ya rasulallah kon moom bu ko xéeféeri Makka ya weddilee ak yonantu doji Makka yaa ngi ko koy saxalal won si xaaxul badri xaragu weer wa almuniru bay aji leer wa kamaalul ximaar yi waxi mbaam ma fii xaybara ca xaybar ay den ba tey qad rawatu solo na ko xoddamaa ñu jiitu ñu fi sira ci sira yonentu bi daana yónni mbaamam ma yaxfuur ne ko demal xool ma Aboubacar demal waxal ma ko lii ak lii bu ñëwee wax moo tax kon berceau yi almaañ yi amee xaw ma almaañ lañ ko tuddee yar leen ba nga xam ne dañ leen di mën a yónni ci yonentu bi lañ ko fàccee te ñoom ci xaj sax lañ koy def yonentu moom ci mbaam la ko defee danaan yónni mbaam yi ñu koy demal ci saaba yi di ko indil ay na ko yónni lool ci saaba mu leen soloon nañ ne keroog ba mu génnee àdduna rek keroog ba yonantu bi génnee àdduna rek mbaam ma dafa mujj xaru keroog la dee moom moom nee na daal kenn mënut du ko moomati gannaaw sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dégg nga euh, dégg nga moom nag tamit daana wax ne yaxfur yàlla ko tàggatal daana wax ne man maay juróom benneelu fukkeeli maam mbaam ci samay maam waaye amul kenn ku ñu mos a ku dul ab yonantu man samay maam yëpp yonantoo leen moomoon kon nag comme kii mooy mujj ak yonantu itam moo ma mujj moom man keneen duma moom kooku boo demee ci kitaabu taxrif da nga ko ci fekk ci Suhayli yi woon si xaaqul badru xarabu weer wa almuniru bay aji leer dal lun tegtal la maa li ahlil xoqooli di di ñeel borom xel yi fii ci loolu imtiraaw werante wakka nadxin naka wis ga bi wëcci zaynaba ci xarxaramam zaynaba ba moo ko yaroon minu ci moom kabran màgget na huwa moom raw ba baxaawu tamit di ak leer hmm. maanaam Zeynabu hmm. rab yu batoom la yonantoo ko yar kër yonantu bi la yaroo dégg nga doomu abi salma la ah, umu salmata ba muy sëy si la ko fa indiwaale woon benn bis nag yonantu bi di sangu ci wanag wi moom mu ñëw rek bëgg a dugg te fëggut ak yooyu te ku nekk ci wanag waru loo wax yonentu bi ndax moom doon sangoo ci la as rek sotti ko ko ci xarxa da damay bëgg a yurul rek mu sotti ko ko hmm. loolu nag jural ko ab taar taar boo xam ne dem na ba màgget waaye daal xar-xaramam ba xii mën la dafa mel ni rek kii am waxambaane comme wurus rek buñ ko sotti isa massa mu ngoog loo teg ngoog bayti bu jafe la nag dégg nga sallallahu alayhi wa sallam dégg nga yaa ngi koy xool de bayti bi nga ne waaw waaw mu ngook boo demee ci anaaq boobu téere bu ñuy wax bëx jëtu maanaam mm, ay ay ay ay ay mburtu ay kii lañ ay gëlem lañ ay ay ay ay ay mbotey bëy ay mbay ay bëy anaaq bil fatxi mooy doomi mbëy mooy mbote boo xam ne jotagut a sëf diraab buñ ko waxee mooy eh, eh, tëb tëb ak kuy ngir bëgg mu jàpp sumaalatu buñ ko waxee mooy mbaanik mooy soow ma hmm. dégg de bu fatt hmm. xarsaw mooy bu fatt dégg nga hmm. léegi nag mu ne wa anaaqun mbote ya xabla bi njëkk seen ak tëb matu ga ma ndëkk tëb ga tafaahum doy na leen max max duhaa soowam ma wa ak mbaanit ma dégg mooy fuurit ma fuuru ga alxarsaau bay aji far yéen dafa bëgg a junji ab xisa sallallahu alayhi wa sallam ah, dégg nga ab ah, bëy yu tuuti rek fekk na leen raq ca ba mu ko defee mbooloo mu baree bëree naan ca ba màndi ci loo xam ne lu tuutee tuutee tuuti la loolu sallallahu def na ko wa waxu xasabu ba mooy waxu yel ba min baax nag naj jin gannaaw ñor wa an yi nun ak wonku min gis ay ci dat tendrement nga bu kaawu jooya ñaari xisa la fële ci benn xare bu mu demoon ci bani hawasid benn yahudiyatu bu ñu tuddee maanaam na bu bintu xaaris dafa laaj lu yonantu gën a bëgg ci xeeti lekk yi ñu ne ko yàpp lu mu gën a bëgg ci yàpp ñu ne yeel bu rayab gàtt def ca yee def ca tooke ëppal tooke ja ca yeeyal ya ñoo fekk yonent bi mu ne ko tey bisab xare la xam naa du ngeen mën a togg maa la yàqal lii yonent bi tegoo saxaba yi ñu commencé lekk am na sax ku mos yonent bi ba mu yëkkati yàlla ba rek mos na ci am na ñu wax ne mosut ci waaye yel bi wax ca kaw ne ko ana mas ma dañ maa tooke yonent bi ne tegaat leen seen loxo yi gàtt bi xamal na ne dañ maa tooke ñi wax ne mos na ci moo tax ñu ne dafa daan wax ne ma zalat ukkulatu xaybar tuaawiduni xata qataxat min ni xasal bulxoom bu fi riwaayati xasal xulqoom mu ne lekk ga ma lekkoon ca xaybar dañu di am jeexital ci sama yaram wi ba ci la doxee dagg samay baat ñenn ñi ne déedéet lekku ca loolu beneen xisa la boo xam ne ca xaybara bokkut ak bii nii léegi nag euh, ci la borom xam-xam yi jëlee ne soo bokkee kilifa euh, moom dañ koo gaaraat fekk lekku rek bul lekk waaye yàkkamti rek daal kilifa balaa bisimilah fekk yow yaa ngi ci digg bool ba problème rek la lay beneen bi nag mooy ba mu demee Madinatu Munawwara bees a nun ani nun min jafe yi amul ñu woon doole dañoo tabaxoon benn jàkka bu tolloog taxawaayu nit. jàllar jël ëkk ak ma tamp ko mu nekk minbar ba mënaguñoo tabax bañ demee nag fëlee Badar xaw a am doole defaraat nag jàkka ja soppi kii minbar ba ñu far kii ko tabax ko. benn bis nag bañ ko tabaxee rek yonent bi toxalu taxaw ca di xutba ba mu commencé xutba rek ñu dégg ëkk ma ba wokk ca kaw jooy. yonent bi ne ko lan la jël loxoom bu tedd ba teg ko mu ne ko ah nga jëloon sa tànk yu sell yi teg ma ko ma ci bànneexu tey nga koy teg teggi di ko teg doj wee moomu métti yonent bi nag ne ko del si at tànk kanam lañ am léegi nag tànnal ma jëmbat la fii ngay ma guy juli ñu lekk sa meññant wala ma jëmbat la fii boo légee nga nekk ca tàndarma aljaana ya moom nag ku muus la mu ne ko tànn naa bokk ca tàndarma aljaana ya ndax tànn naa li dul jeex ci luy jeex kon yàlla ñu si yàlla lekkal ëllëg ñu nag maam xalifa ak mbooloo bi moom la wax ñaari xisa yooyu moo tax kon wa kalaamu firaaxi mooy xisa bu njëkk min bax di najjin kon xeel buy wax rek xéeme na rawatina buñ togg bam ñor wa aninun min jitxihi wa kaaw mooy loola keroog tam doxee lu la saxaaba yu bari ci jàkka ji di jooy loo teg war a sànni na aljay sa lël ba bil xasaa ci jàmbaraay fata walla dëddu na kullu aynin bépp bët la ko na ko bi haa wa xas baaw dégg ay xeex bi jàmbar xas baaw ay xeex maanaam def na ko ay yoon keroog xareeb Badar def na leen ko sànni leen ni saxatil wujju keroog xareeb Xunayni def na leen ko ba mu ko sànnee tamit tabaarakallaahu ci la leen gañee keroog mu ko sànni si wax ne saxatil wujju dégg nga ci la ñoom ñëpp ñu mujj torox yàlla na taan woo mu sànni woon euh, badar ba wala ca uxut euh, euh, la ko ca may yàlla may ko ca ca la ca la yàlla ne ko wama ramayta is ramayta walakin la rama loolu mi ngi xew ca badar badar la ko dégg nga léegi nag la mbooloo may bari bëri wenn saanam booba kenn ku ci nekk maanaam pepp suuf ba dugg na ci sa bët xam nga lu kon yàlla rek ko man dégg moo tax mu ne war a ma na aljay sa lël ba bil xasaaki jàmbaraay fatawala daduna kullu aynin bépp la woo ñeel na ko bi ci bët ba baawu jàmbaraay dégg nga waxadaa mujj na li tufayli ñeel tufayli mooy omar ibnu tufayli addawsi yi saxaabi bu siiw la dégg nga de fi sawti ci yar nuurun leer tanjali dana huñeeku la minu ci moom àllay la tugg di lal yaaw goy aju omar ibnu tufayli dafa ñëw tuub si ci yonantu bi bàyyi aw nitam léegi nag mu wax yonent bi ne ko sama nit nga dañoo dëgër de su ma sañoon daal nga defal ma benn miracle bu ma leen yóbbul nga xam ne dinaa leen mën a attiré yonent bi defaloon ko ko ci jëmmam ci loxoom comme na la yonent yàlla Moussa defoon boo defee nii mu weex boo ko bàyyi mel na melatoon mu ne ko soo ma ko defalee fii su ma demee dañuy foog ne bàyyi gi ma bàyyi seen yàlla yi moo tax yàlla nattoo ma nii sama yaram wi tàkk ka def nii ñoom xamuñ lu la def ko muy mox gi bu génn maanaam karaama bu génn sama jëmm hmm. yonent bi defal ko ci ab aw yar bi bu ko defee nii rek mu soppee ko producteur boo xam ne mën naa niital lu la lu la yéem bu ko laalaatee mu fay mu yóbbul leen ko nag ca la doxee itam ñu bëri ñëw tuub ci kon loolu def na ko dégg nga de mm, loo teg mm. asbaar reggal na xabdatun maanaam ngëbit mina tam ni ki tànnama jëy seen ablal wa huwa moom jamun mbooloo daqat xatt ne bi ci albayda da wàll ya sëq na tàndarma nii rek wala ci ñam rek teg ko mbooloo mu bëree bëree baree bëree bëri ñëw lekk ca ba suur te taxut maanaam mu jeex mos nañoo rendi benn gàtt mu yónni kenn ci saxaaba yi ne ko demal nga xoo ñi ñëw lekk kooko dem xoo ñëpp ni ñëw leen ñëw leen loolu mi ngi xew ci xandax matoon nañ junney nit ak nangam mëntu ñoo fomm kenn ba ñëwee yonent bi tiim ko tafli ca waaye li nga dañoo lekk lekk ba bàyyi ko fa jeexut kon yonentoo ma a fekk lu tuuti mu mën koo bëril wa ka arjuli naxlatin ni ki maanaam ah, wa jamaadatun ay jamaadat afsahat leeral nañ bi bayaan niñ ci ah, bayaan niñ ci biral ajasa lot na xam idyaan yi wala si dikkee ko bu la ñu fasaane ay jamaadat wax na ñoo yonantu bi wax naa la sànq ne la doj yi nuyu na ko rawatina ca màkka kalaamu firaa boobu ñu jàngale gi jamaadat ak yeneen ak yeneen bu jamaadaat wax ak yonent bi ku ko bëggoon a lim si ngay fanaan waka waka waka waka ni ki kaw diir kem kaw diir daxaa woone laa ñeel ko naa ni ñaar daa in aji foote aw salaasan wala ñett fa amati matale na jafalaawu mbooloo ma dañu teg asi super rek yonent bi ne ko demal xoofee ñaar wala nga xoo ñett waaye dem na xaw a ëpp kii ne yen mbooloo mi yonent ne ngeen ñëw lekk loolu nag kenn mënta fommati ñu ñëw yonantu mujj def lam cay def ñu lekk ba suur moo tax xalifa teg ca ne su ma saara topp mu gën a taxamu ñam wa yar boo di dolleeku kamaakaanu comme nam nekkee woon walam tam kus wàññeeku surakaaw ñu ko bokkale xaddal ko limba muy gën di bëri ñëpp lekk ba suur wa ko xor jooni nax la ni ki maanaam ci tàndarma saara mu gën a say fan tijaasi laa taqiidu fekk lahu minhu ci moom saabiqun mbubam koŋ mu jot xas daaw bay aji dëgër yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam sa xarib Uhud jël na Abdullah ibnu Jahsin jaasee ma damm mu jox ko génn cëgg ak tàndarma mu mujj mel ni jaasi ñaw ku mu fu mu teg rek loola dagg shahidat seede na lama kësa boobu bañ ko fenloo zibaabun maanaam euh, maanaam till ya hmm. wa zibaabun ak mbëtt ya hmm. bi siqii ci dëggalam wa zibaawoo kilal ya hmm. kon da ko gaa yi weddee till ya gëm nañ ko yàgg ngaa déggee xisaab till gañ jàppoon rabbu ba mu ne ko ñaanal ma intervention ma ñaanal ma nàmpali samay doom yonentu ne noonu ndax da dellu siwaat mu ne sama napp dellu mbugal mi gën a métti nañ ko ko teg yonent bi nag ñaanal ko intervention mu dem di wax laa ilaaha illallaah Muhammadu rasulullaah ba mu ñëwee waaja ba ko mujj baa bàyyi mbëtt mi jàng romb romb nañ ko léegi kéwél yi moom waxi nopp ak tillëg a jàppoon gàtt ba mu wax ak moom ne ko ndax yow yaa lekk tillëg jàmbur gi mu ne déedéet addati jooxe ne naaqata gëlëm ga asaadata seede ga lama ba nekk minu ca moom istiftaaw ak fiti fi am ria ci mbiram ñaari saaba yu ñoo doon yonentu wax loo gëléem nga gëléem gi ne ko kii dafa maa sàcc diw mi mooma moom ñëpp taxaw seede ko ñëpp fekkee ko sallallahu alayhi wa wax ne fas ah, yi nekk ndakaaroog yu mel ni ñoom buñ mënoon dox doxu ñaxtu hmm. xam ne buñ bindee lettre wala ñuy wax ñaam ku leen déglu hmm. kon nit ñi dootuñ doxati ñaxtu dañ ñoom ñooy fees tay bi dégg nga de wa bairu gëléem nga asaabu ngay aj jafe istakaana mokkoon la day fa yonentu bi hmm. wal wakaan nekkoon la wa ñeel ko saratun ak song waxa daaw ak mamm gëléem euh, goo xam ne dafa euh, dafa kenn mënu ko woon a ñemee war ngir ak mën a màmm bañ ko indilee yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam si keroog ba ko yonantu bi laalee def lam def ci moom rek ci la mujj maanaam mokk rupp goor ci kanam yonantu bi loolu tamit ba tey boo demee ci téere bu ñu tuddee bëx jëtu indi na ci mbiram maanaam gëléem googu saxaaba yu bari solo ko nag ni ngi ragalam ngaa taxoon kenn du dugg ca ngédd lam nekkoon ba fa yonantu ba ñëwee nag mu tëral lam tëral ci moom rek gëléem gi goor Euh, du ko defee nag léegi fa qaala ma bayna samaay wal ardi shay'un ilaa ya'lamu anni rasulullah keroog yonent bi ne xamul lenn lu nekk ci diggante asamaan ak suuf dul ba xam na kan man maay kan xam na ne man maay yonent bi yàlla bi suma qaala atadruna ma yaqul ñu ne ko ah, ah yàllaa ko xam mu ne saxama annahu qadima mawla mawalihi ishrina sanna hatta kabira fa naqasu min min alafihi wa zaadu fi amalihi mu ne xam ngeen gëlëm gi lu muy tawatam ñu ne ko déeréet mu ne dafa ne daal bi mu bi mu duggee ci loxol ki ko moom ak léegi ñaar fukki xat la daf na ni màgget na te waa ji dafa ni wàññi la mu koy xontoo gën a yokk sëf ba lii de lay tawat wa bairun jëlam li jaabir ñeel jaabir saara mujj na yaadoo daan xelu baax da an kaana gannaaw ba nekk xaqoo di ko gàllankoor yaaw ak lottu jaabir gëlëm ngi dafa màgget mënu dara mu ñëw ci yonent bi ne ko man daal sama gëlëm laa bëgg nga ñaanal ma daal sama oto bi daal day paam rek yonent bi def lam ci def rek gëlëm gi commencé gaaw gaaw goo xam ne kéemaan la kon moom yàgg naa fekk gëlëm guy màmm mu def lam def ca moom mu mokk waaye daanu fekk gëlëm gu tayal gu suurut defu dara mu def lam def ca moom mu mujj di màmm wa sukootul asnaami rota xiram ya bil bayti ca kaaba ga lamaa kaana ba nekkee minu ci moom imaawu ak ju jëli naxwaa ji ma ci wàllu xiram ya loolu yaa ngi koy jàng ca fatu makkata ba muy jël kiyam ba ba di jublu xirim naan waqul jaal xaq wa saxaqal baatilu baat baatila kaana zahuuqa lu man ñetti téeméeri xërëm ak juróom-benn fukk ak nangam yëpp daal. wakamaa yi nit ki ndox li biiri ñeel bi bi teen ba dégg nga de euh, kaana nekkoon na ujaajan di aji wex xatt faqat daa mujj na mi ne ci wóomoo asbun di aji ne xewaaw di aji màndal yéen too fekk teen bu naqari te arab dañoo bëgg ndox mu neex tawat ko ko mu ñaan tafli ca mujj ndox moom mu safan xorom. mujj neex kon de moom waroon naa ñëw suñ kawlax gi suñ ko ndox ma def bu ci naanee ak ndoxum Tuubaa mi yaakaar naa ñëpp dañ ci mën a naan waka axbaar ak solo ga ne ana faris naka faris war wuma ak ruum sa tax wi xal si naa làkk am làkk xal naa làkk am laakaxa buuram ya xona faaw saxaba yi keroog euh, xandax ba ñuy gas di gas ba yegg ci aw doj dóor dóor mënuñoo fexe ba traversé ko ñu xoo yonantu bi mu dóor ak pikk bi étincelle génn mu ne fii ma toog war nañ ma état ruum ya mi ngi mel ni ba ñu xaj weexaay ba ak saboté mbiram àdduna ak nañ ransale woo mm-hmm. moo tax mu wax loolu mu ne war nañ ma ne sama diine dana fa yegg mm-hmm. mu dóoraat ne war nañ ma état faris ya mi ngi mel ni ba ñu xaj sama diine dana fa yegg ñetteel ba nag ci la dóor mu toj nag mu ne ko mu wax tamit dana foofu yëpp diineem dana fa yegg nag te loolu ba nga koy wax lu yàgg la te booba ñoom ñu ngi néew doole fukki junne nit ak ñaar ñoo ñëw gaw leen foofa ba ñu mujj gas dëkk bi yëpp pour dëkk foofa te euh, Salmaanul Faarisi moo joxe xalaat bi xam nga loolu neexutoon a gëm foofa foofa ñëw ak ñett lañ toll wa bi ci reyu sët ba Xasan Xuseyni bi ardin ci suuf euh, hiya moom karbalaawu njàqare la mooy karbalaaw la tudd min tuuli kurbiha ca yàggan njàqareem nga yonentu bi muy dund la wax ne sama sët bi euh, dañ koy rey muy Xuseyni dañ koy rey dañ ko xoox ak ngan fekk ci biir ngan googu dañ ko tegal ay ndëgg sërëx waaye nam ko waxee woon tamit ku ñu tuddee Shamir ibnu Zi Juusin moo ko rey ca place bu ñu tuddee Karbala ca place bu tudd Taff foofu lañ ko mujj maanaam rayet loolu yonent bi waxoon na ko wa kama qaala naka la waxee woon fii xiraa ci xiraa ne ko tey ngaa dal nabiyun ab yonantu moo nekk sa kaw su ma siddiqun topp dëgg kon baax dawa nekk na ci gannaaw suhada wooy sayid xam nga yonantu fa baaxoon bu daan dox ci kekk kekk la day mujj nooy la day wax ne su ma nekkee sama dëggaraay gi léegi tey ma xusi ko moo soo ma nekk mbugal moo xam ne ma yàlla teg ko ma fu ma jëm ak moom mm-hmm. buy dox tamit ci kekk kekkal day mujj nooy kenn safaan ba rek Euh, comme nam ko waxee maam xalifa ke salma léegi nag euh, benn bis nag muy dox ci xaaru xiraa rek muy yëngatu bañ a def na moromam ya def yonentu bi rippi ko ne ko dalal ab yonentu moo nekk sa kaw ak dëggalaa ak ñaari woy shahid dëgg moom mooy yonentu ba aboubacar mooy dëggalaa kon ba ñaari woy shahid mooy omar osman kon moom foofa la waxee ne yéen ñaar dañ leen rey te booba moo tax it osman dañ ko fekk mu jàng alquran ba ci fasa ko xumul laa ñu rey ko gis nga ko tamit euh, omar ibnu xataab defar leen sàpp yi ci julli rek ci lañu ko jamee paaka euh, xulaamu muxiira ibnu saxba di abu lu'lu'a moo ko jam paaka ba ca la doxee dee dégg nga de loo teg lam suhoo laalam nga ar su booba jaa a mujj na fa aweda mu weex maalam tax wi loo xam laalu ko mu ne coom kafoo teen xam la bay daawu euh, dégg nga euh, di aji weex mu sa ñëwoon ci moom di ko ñaanloo muy xaysu ibnu zeydin aljusaami ne ko man de maa bëgg ñaanal ma gudd fan yonent bi ne ko hich qarnan mu dund téeméeri xat waaye fa yonent bi laaloon dafa weex tal fam laalutoon nag mel kii mën ni bopp bopp mu ci nekk ñaari xaaj loolu kéemaan la lam su mujj na fa ab weex na maalam tax yi loo xam ne laalu ko bind ci moom la bay daaw di aji weex sallallahu alayhi wa sallam mooy xaysu ibnu saydin moo ko doon ñaan loo gudd fan dégg de loo teg was mooy mooy xisa ba mu wax la ca xaybar ba mu waxoon ne fii ma toog gis naa état su Kaysar ak Paris la moom lay wax si nii hmm. wa shararatu miawalin hmm. ferñeentay eh, jëfandikukaay ga miawal bi ñu ko waxee rek mooy pacci man naa nekk sémmañ man naa nekk maanaam mooy jëfandikukaay daal man hmm. naa nekk pikk mën naa nekk lépp lu luñ soxla kaana nekk na min xattukee ko ci moom waxuwa moom fil ca ngas ma eh, dégg nga injilaaw ak wuñu la li iwaan ñeel iwaanu kisra foofu mu sànni la ne ma taw war nañ ma kisra war nañ ma faris wan nañ ma ruum ca troisième dóor ba nag ca la toj mu ne fii yëpp sama diine dana fa xegg loo teg wa ak jullee ala najaasi yu ci najaasi yu wa dunal ardi xees na suuf mi ne ci ma faawi ay àll wa xalaawu ak àll tuma hmm. dafa toog rek ne hee sama waa ngi génn àdduna ku baax di najaasi yu buur ba nekkoon Éthiopie hmm. ñëw leen ñu dem ca àll ba ma jullee ko ñu def ñeenti sàpp yonentu ba taxaw ca kanam jullee ko hmm. wax seede ko seede yu rafet Euh, turam nag moo doon asxamatu aussi la imaamu Shaafi yu jëlee na kon mën nañoo jullee ku fàddu moo waral nga gis ñenn ñi taxaw fii di jullee ku dee Arabie Saoudite mm. mais imaamu Maalik d'accord ci mu ne loolu xusoosiyatu la yonent bi rek moo ko jagoo mm. way naawoon ndab xanu ci moom aljiyos lël ba ta wala dëddu nañ waxiye moom sabaa way regg lañ walam yàqil te néewut inaawu ndab la mm. nam tolloon la toll Ah, lekk nañ ci ndab daal mu teg lekk nañ ba suur te nam tolloon mu toll ko sekkare woon na ñu ngi koy doonante ba léegi wanaa tàgge na ahlu mutata waa mutata waahidan kenn baxda ak xii gannaaw mbokka ma wa kullu ñoom ñëpp suhada way sayid lañ dafa hebale woon ñi war a dem fële ca mutata war a dem xeexi ndeysaana mun a jël drapeau bi jox ko jaafar ci dañ daggee loxoom ya ba mu génn àdduna yonent bi ne maa ngi toog fii ci Madina waaye xamal nañ mën a jaafar génn àdduna jël ñu jël drapeau bi jox ko Abdullah ibnu Rawaha fekk moo ko waxee woon noonu avant ñuy dem ñu rey Abdullah ibnu Rawaha dégg nga de ba lii lépp maanaam kii euh, kenn par kenn di dee mu jigi nag lañ ko jox euh, gayndeeg yàlla ga tabarakallahu euh, Xaalid ibnu Walid ci la ñu amee ndam nag keroog lañ ko tuddee lañ koy tuddee sayfulaahi waaw ci xare boobu ci lañ rayee aswadul xanas yi mi daan woote nubbu watu ci jamonoom ak musaylimatul kasaab moomu ki ko rey mooy fayrus ad-daylami yu moo ko rey eh, kon ki doon woote nubbu wa moo doon maanaam aswadul xanas yi ak bi maanaa eh, maanaam ki musaylimatul kasaab wa abul amlaak abul amlaak kun la mooy bàyyi buur yi mm. alati ki nga xam ne xaala wax ne xam ne ñeel bàyyi tax ya mm. bàyyi tax ba wari aji séef na al laa buur yi wal xulafaa xulafaa ya mm. ba da daan dàkkantelee abbas mi bàyyi taxam abul amlaak waaye gis nga tey tamit ah, abbas moomu gannaaw bi yonent bi génne àdduna xulafaa yi dem jugee ko fi yëpp ñoo nekkoon buur yi ñooy ñooy dawlatul abbasiya daa nga leen dégg ah. kon yonentoo ko daan tuddee abul amlaak dam ko waxee gis nga ni mel kon kaana kaana amee na min ha ca moom as safaahu tura contraire ba mansuuru mansuur min ha tukkee ko ri aji seetu min ha ci moom haasa li waraayatu drapeau sawdaaw bay aji ñuul wagasa naka noonu tasbihu taxaami saabal ak ñam yàlla day fa moom samihahu dégg na ko aljamaatu mbooloo ma kuromaaw yooyu way tedd toog dégg ñam di saabal subhanallah walhamdulilah ñëpp di ko dégg masuhu ak laalam fawqa rijli najli atikin ca doomi atik ja hmm. abdullah ibnu atik Euh, baxda kasrin gannaaw damm ga xat kaana amee na min ko sifaawu safara ku bokkoon na ñu dàq daw ci arab moo gën a gaaw 504 dafa dammoon nag bañ ko indilee yonent bi yonent bi jël loxo ba rek teg ko ca rek tànk ba mel ni wa bu saaqu nag taflit ala kasirin ci ku damm kama axbara kama ajbara comme naka la jamee mi ne ci ibnul akwa ibnul akwa mooy dawkat ba alxaddaaw koy xiluxa kon ibnul akwa dafa dammoon ku mënoon a daw la keroog ba ko yonent bi laalee keroog maanaam la saafara wu ca saasa ibnu atik Euh, comme ni mu ñëwee ci bëx jëtu mm. yonentoo laal tànkam ba muy Abdullah ibnu Atik mm. euh, ba nga xamee ne dafa ray Aba Rafia dégg nga mm. mujj damm nag mu mujj kaanoo euh, mel ni daal dara mosu koo laal yonentu bi tafli ca ko di ibnu ak wax moom ku mënoon a daw la keroog xaybar la gaañu woon dégg nga daana ku soog fas di ko raw mënoon daw la walit naj lil walit ñu am doomi walit ja mooy xaali ibnu walit mi ngi tukkee ko ñu sifaawu saafara min jiraahi ci jam-jam boo xam ne asaabo gis na ko en daawu noonu ya xaalid ibnu walid yow mu xunay ne dañ ko jam gaañ ko gaañ yu métti su ko yonent bi ñëwee di seet si rek ñaanal ko tafli ko keroog la wér tàggali koog moom wa sifaawul junnoon ni saafara saddum junne bi lam si kilaal mi nu ca moom xëy na axyan waxtu wa nga xam ne lottal na ruqaatuha moccam nga adduwaawu saafara ya jàngoro ya hmm, dawaa dégg nga euh, daawu dégg nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo mos a fekk euh, ku ku saddu jinne mos a dal lu métti métti métti mm. ba kuñ dem rek du ko man a faj bu mm. tafalee raay rek mm. nga teqali ko moom maam xalifa nag xiir na loolu waaye lim lim lépp xam na ne kenn mënut matal moo gisaat yonante mu jigi mu ne moo gisaat ay moo gisaat lal xasabul yét takk yeti yaat yi di matal yaat yi di dikki en léa ci moom fahiya moom mi ngi mel toxsaa def na dégg nga da takkee min xablaati nekk ma xas baabu xeer yi ndax jembaraay kenn mën na koo lim mu ne ko mënta lim xeer yeeg jembaraay mënoo lim maanaam moo gisaatu yonent bi moo tax mu ne moo gisaatu ay moo gisaat la laal xasru de takk yaati di mën a indi di indi alayha ci moom fahiya moom daal fa mel ni mu ngi mel tuxsaa koo xam def na takkee xas baawu jambaraay min qablaay ci njëkkam kenn mënu ko